leen yàlla may soxna yu baax jigéen ñi amagul it yàlla na leen ko yàlla may mhm. di ñaanal aussi kilifa diine wax nanu ko sànq jëwriñ dafay baax ñoomit ñu ñaanal leen bu baax ndax ñoo ñàkk réew mi ci ay mm-hmm. ñaan ba mu mm-hmm. uh, tegu di nuyu bu baax waa Touba Kër Ñang uh, garage sëñ Mourtala bu njëkk bi ñooñu sama ay uh, nit la ñu nuyu sama mm-hmm. maam bu baax sëriñ Modou Awa Balla Thiam bu Kër Ñang ñu ngi koy ziar waaye nag sëriñ Sidi Ñang it ñu ngi koy ziar bu baax a baax magalu Kër Ñang bi weesu gis nañu na mu jaare yoon Zeyna Touba sa kër la nuyool bu ko defee ñu dugg ci li nga xam ne nag allah ñu nuyu internet yi door a dugg Touba nuyu Serigne Diagne Khadim Niang Amath Diouf Fata Mbaye Aba Moustapha Mballo euh, Amar euh, Mbow euh, Nazir ba Ndiaye. ñu leen mhm. di ziar bu baax a baax aussi. Victorine Biaye Moustapha Diallo waa Abdoulaye Traoré ak Abdou Silla Petit Maman Ahmed Diouf chéri wala Ameth Lo Ameth Lo mooy chéri Oulay Mané Ameth <laughs> Diouf mooy chéri euh, chéri Fatima macha allah da ngeen fi amay jëkkër Alioune Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar sëñ Saliou Sylla mhm. ñu ngi lay ziar yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun Ahmadou Ka euh, ci euh, li nga xam ne moo di matinal tey bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mhm. di nuyu waa Touba comme ni nga ko waxee waa Daaru Xudoos mhm. waa kër sëñ Xaadim ngi xasaat ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay sëñ Modou mosatu sëñ Saaliw ñu ngi mm. leen di ziar bu baax rawatina nag mm. man man moom ku ma xam-xamee maag waa kër sëñ Saaliw waaw ah ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ah, bu baax a baax a baax gis nañu ñaandeeg taxaw yi mm, ak conseil yi surtout te daf ci am solo nit da ngay am wéeruwaay rawatina nag nga wéeru fu baax muy ci murit bi ci tiijaan bi ci xaalis ci mm-hmm. laaj ñun Sénégal dañu may wéeru mm-hmm. dañu may mm-hmm. wéeruwaay yoo xamante ni buñ wéeru ci yomb na lool waaw baax fi yomb na ñu baax rek lañ fi fekk te mag ñu baax ñoo tee réew mi ñuy sàkk aussi comme ni ko euh, euh, sëñ Muntaxa euh, digle woon ñuy jàng xasida di wàcc ay alxuraan ci ci ci jàkka yi su ko defee rek ñu mën a am nawet bu neex macha allah rabbi taw mi naat Sénégal naat réew mi jëm kanam Sénégal émergent. Ah, Sénégal émergent jub jubal jubati. jub jubal jubati si ah. mi ngoog jërëjëf duyu bu baax waa Daaru Salaam ñu ngi ñu ngi ci kii bi sëriñ euh, Moustapha Saliou ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom sunu wasila la euh, mënees nag nañu tënk rek wala mën nañu ko wax ci ponk yi nga xam ne laata revue bi euh, ñu koy tàmbali ci kanam tuuti dañuy dikk rek continuité comme ni ñu leen ko diggee woon dafay baax bu ñu jukkee dara. bu ci amee lu fës rek ñu daal koy andi dégtal leen ko yéen suñu ay mbokk internet li nga xam ne nag waxtu wi moo ñeel coowal opposition ak pouvoir bokk na rek ca lekk la ko déclenché di arrestation Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao euh, démb rek euh, gis nañu. Mhm. placé nañ leen su mandat de dépôt ni ki altine rek la ñuy jàkkaarloo ko juge bi juge d'instruction bu ko defee rek ñu jéem a xam fan la waanante di mu ki gëtam mhm. waaye ca noonee nag euh, Zeyna ak jawrin lu yees dafa am ci mbir mi ndax gannaaw waa dikk bi ñu ñëwee euh, teg loxo Bah Diakhaté ci ay déglu ak investigation yoo xam ne ñu ngi koy mhm. amal mhm. ñoom waa division des investigations criminelles dañu jël téléphone Bah Diakhaté exploité ko mhm. waaye naka la ñu fa fekk ji ay mbir yu doy doy waar yoo xam ne xaaruñu ko woon ci yenn ci nga xam ne mooy suñu kilifa yi fi newoon Zeyna waaw Euh, je pense que ni euh, ni ñu ko gisee ci xët euh, yi ak ci information bi nga xam ne ñu ngi ko recueillir ci sunu ay confrères bu Seneweb mhm. ñooñu ko xamleel ci li nga xam ne moom la enquête bi gën a révélé mhm. ci wàllum kii di Bah Diakhaté ci arrestation mu mel ni nag ñoom la ñu wax ginnaaw démb enquête la mu génne muy ay technicien mhm. comme li leen ko yoon maye dañu daal di consulter li nga xam ne moo di compte bu Bah Diakhaté ñoom nag bi ñu consulter compte web bu Bah Diakhaté ci lañ découvrir ni Euh, dafa daal di nag euh, am dafa reçu dafa recevoir benn transaction euh, ci montant global de dix millions de francs CFA. Mhm. mu mel ne nag bu ñu defee expertise bi ñoom nag daf leen permet ñu mën a xam ñan ñoo déposé xaalis yooyee. Mhm. ci compte Bah Diakhaté nag cité nañ ci sax ay ay nit yoo xamante ne Sénégal xam nañ leen fii ñenn ñi yoroon nañ nombal tànk fii ci biir réew mi. Mhm. bokk nag ci ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ci enquête bi. Mm-hmm. Euh, dañu daal di déposé xaalis bu takku takku ci compte Wave Bah Diakhaté bokk na ci euh, Mamadou Gueye Mamadou Gueye bu euh, nekkoon directeur bu domaine. waaw Mamadou Gueye rek la ñu wax xamaguñu nag ba xam mm-hmm. exactement boobu la wala du boobu. Mm-hmm. mais Mamadou Gueye la ñu la ñu wax. Abdoulaye Timbo. Biram Faye Alsane Djiba et autres. ñi nga xam ne wu wuñu ko. Mhm. dans l'historique du compte ñoom la ñu gis ni ñoo def euh, transaction ba bokk na ñeneen ñu ci toog ñu ñu ci toftal. Mhm, dañ cee cof noonu ñoom nag waaw dañ cee cof noonu rek mhm. génneel ñu tur ndax ñii euh, boo gisee ñu génne seen i tur fësal ko euh, non seulement la plupart ñi ma gis ni muy Timbo ak Biram Fay Alsane Djiba xaw ma ko Mamadou Gueye bu fekkee bu bu bi ñu xam la Pikine bu ñu xam la mm. euh, ñoom ñëpp ñu nga euh, dëkkee foofu ca euh, Pikine nekk ay responsable politique mu mel ni aussi ci élément yooyu nga xam ne moom la ñu gis ci compte Wave Bah Diakhaté mu mel ne nag enquête bi sax dafa poussé mm. ci élément dig yooyee ñu daal di nag tirer benn conclusion suivante mm-hmm. mooy Euh, kii di baa jaxate euh, activités yi nga xam ne daf ko doon def euh, dañ ko financé par les dignitaires de l'ancien régime muy APR. muy lu doy waar. Ah, jëwriñ loolu lañ ca loolu lañ ñoo ko déggandoo li nga xam ne jot nañu koo dégg ci li nga xam ne moom la enquête bi révélé ñu dégg ci ñoo xam ne nag ay kilifa la ñu woon nekkoon ci nguur yu weesu. Mhm. lii nag laaj la bu samp est-ce que dooleewul dëgër rek li ñu naan ñoom ñoo ñëwee ñoo doon yebal baa Diakhaté ci la mu doon amal. saal bu daal mënees ko duppeeloo. Mhm. waaw loolu moom action la yoo xamante ni yàgg na ci millier média ak télécommunication ak euh, politique euh, bu fekkee ni information yi c'est confirmé ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo def euh, acte yooyu mm-hmm. mu mel ni kon Bah Diakhaté li mu mm-hmm. doon wax waxu ko en pleine conviction mais mission la doon dox mm-hmm. mission la doon def mission bi nag dafa laal lu bari non simplement que moom liñ koy toppee mais ñi nga xamante ni ñoo ko doon jox xaalis boobu tamit. Mhm. ñooñu dañ leen war a topp. parce que dañoo financer corruption dañoo financer corruption dañoo financer euh, nu mu ti pour ñu yàq deru nit. Mhm. wala ñu wax surtout nag ka ngay yàq deram wala ka nga xamante ni yéen yéen a yónni pour ñu kii ko kilifa la ci dëkk bi. Mhm. kilifa la dëkk bi manque de respect boobu rek moo tax mbir mi warul yem ci ba baa jaxate dañoo jàpp ne ñi ñu fi war a woo. ah normalement yan cause moo tax ñu yónnee ko xaalis boobu. laaj leen lu waral. lu waral waaw loolu moo waral ngeen yónnee ko xaalis bi. parce que te nga euh, nu mu tuddati euh, fii sax dafay xaw a kii mais boo demoon Europe euh, yenn somme yi boo koy envoyé day am justification. Mm-hmm. bien sûr. même fii bu jógee Europe di ñëw fi yemale par semaine. par semaine lu war a dugg wala par weer. ñun ñii rek bu ñu mësaan nekk Europe di envoyé xaalis Sénégal nañu envoyé par mois lu ëpp 900 euros. Hmm. ci ay dispositifs yu. Eh? nguur yi nguuru réew yi di jël. waaw ñoom te seen xaalis dañ koy sàmm ku nekk citoyen bu nekk dañuy sàmm yow li ngay am ak ni nga koy jëfandikoo. même bu mm-hmm. fekkee ni euh, nu mu tuddati da nga ko def chaque chaque mois nga yónnee neuf cent euros wala huit cent euros dinañ la doo ko defee un mois deux mois justice dina la wala nga xëy justice woo la. Mm-hmm. laaj la yow xaalis bi ngay yónnee foo ko jëlee ak lan moo tax nga koy nga koy yónnee. Mm-hmm. ak ñan nga koy yónnee. parce que tey jii xam nga mënoo fa nekk di fay ko benn 1000 euros wala cent euros ba pare bëgg yónnee yónnee 900 euros par mois kon yow looy dundee. kon <laughs> mm-hmm. foo jëlee xaajo dañuy am soupçon ni soit da ngay jaay drogue. <laughs> walla ngay def euh, lu ñuy tuddee prostitution. dafay ah, parce que dañuy mm-hmm. contrôler mm. ndax te yow ndax li ngay gagné par mois mën nga ci yónnee loolu par mois si sa dëkk. Mm-hmm. ndax tamit ñi nga koy yónnee yónnee woo ko ay organisation criminelle xam nga terrorisme bi ay financement international la ñuy jot <laughs> yooyu yëpp ñoom dañ koy contrôler mhm. pour pour seen sécurité dëkk waxatuma dala nag ngay yónnee un bon pas jaxate doo doo mën a ni journaliste la lan nga koy tuddee ah gars yi danañ activiste la activiste cela veut dire lan républicain cela veut dire quoi activiste mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi ah di nekkal askan wi. Mm. ñu leen di wàcc ñu leen di gis ñuy wàcc ci terrain bi. di mm-hmm. kaasal askan comme Guy Marius Sagna nu mu ko doon defee. mu ngi koy continuer def ah, tey. comme Karim Xurum Xaq ni ñu ko doon defee ah, mais laaj bi samp mooy jëwriñ est euh, ñoom ñi nga xam ne dañu doon xeex wax ju ñaaw jàpp ne opposition bi dañu fi nekkoon di xaxaar ka saaga ci loo xam ne lu tegeewul yoon la. Mm-hmm. bu fekkee tey gis nañu yenn ci ay yoo xam ne dafay firnde ni. ñàkkul seen loxo bokk ci li nga xam ne mooy euh, saagakat boobu la di Bah Diakhaté est tey euh, la ñu doon woote dëgg la est-ce que du manipulation bi ñu leen doon jiiñ tey loolu daf koy dëggal ndax nag koo xam ne euh, dafa nekk saagakat nga jël ko mu jaral la nga def communiqué ci benn partie communiqué bu am solo ndax lu bari jaar na fi communiqué génnul donc arrestation Bah Diakhaté jaral na ba nga def communiqué boo xam ne ngir rek wane ni yow mi ci sa partie la bokk di ànd ak moom ci kàddu yu ñaaw yoo xam ne diine sax nangu ko. bon xam nga APR moom bala benn bokk yaakaar ku leen ku leen kii euh, ku leen xam-xam ni. ci loolu lañ mës a nekk. maguy ci maguy def pro def promotion wu saagakat yi. Mm-hmm. waaw def def def def promotion wu saagakat yi. Mm-hmm. waaw def promotion wu saagakat yi. Mm-hmm. ak euh, sosalkat yi. tuumaal dafa mel ni modelu politique boobu modèle façon de faire politique boobu ñoom ñoo ko fi indi mu ngi commencé nag ba Macky sàll falo daal di dem jëli euh, Souleymane Jules Diop. Mhm. jox ko jox ko poste bu am solo. jox ko poste bu am solo parce que su le phénomène boobu Souleymane Jules Diop moo ko njëkk a Mm-hmm. peut-être que moom defu ko woon pour que pour euh, pour am ci dara. Mm-hmm. mais daf ko defoon parce que nu mu tuddee tuddati euh, dafa amoon problème ak gouvernement Ablaye Wade ñu exilé ko mu dem di def benn forme de guerre à distance di dénoncer état bi di dénoncer Ablaye Wade di dénoncer aussi corruption bi dans le milieu religieux loolu moom moo ko ci yóbbu woon. ba yàlla def Ablaye Wade euh, euh, daanu i sàll ñëw daal di koy woo jox ko poste léegi loolu mu mel ni dafa ubbi benn brèche boo xamante ni ñi ci jaar dañu bëri mu nekk benn genre gagne-pain boo xamante ni dafa feeñ Sénégal léegi tu vois et puis ñu gis ne aussi dans niveau de la ci niveau média bi am na ci euh, média yu bëri yoo xamante ni c'est des médias d'état mm. dañuy financer dañuy jënd ay émissions dañuy jënd ay ay titres yooyu yëpp phénomène yooyu yëpp dafa dafa dafa nekk loo xamante ni dafa nekk réalité Sénégal mais nag dem ci ba nga xamante ni yow euh, des hommes des hommes politiques ou bien des hommes dañuy lay dañuy jël xaalis di ko jox euh, koo xamante ni dafa yor média privé parce que chaîne la ubbi di ci saaga kilifa dëkk bi di leen ci tuumaal di leen ci wax wax joo xamante ni weñ bu ci tag dee mm-hmm. loolu c'est trop donc mën nañ ne sax Bah Diakhaté san la ci carte gi mais moom it euh, di xam ne ne euh, mënuñu jàpp Bah Diakhaté ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ba pare bàyyi Ousmane Tounkara mu libre gannaaw kàddu yi nga xam ne Tounkara yëkkati woon na ko Ousmane Tounkara fu mu nekk mi nekku ci réew mi mi ngi États-Unis mhm. États-Unis loolu du fa crime mi ngi États-Unis États-Unis loolu du fa crime gis nga assan Diouf état yan effort la état defoon ba ñu indi ko Sénégal. Mm-hmm. daf ko jiiñ terroriste. Mm-hmm. daf ko jiiñ naka sudul noonu. mais malheureusement que Assane Diouf ba muy def loolu nekk activiste amul woon ay documents. Mm-hmm. américain donc ba état defee pressing américain yi xool kii bon mënuñu ko fittee parce que non simplement que deme na ni ñu ngi koy jiiñ terroriste te amul ay documents ci la ñu ko indee. mais à travers cela ñoom xam nañ ci expérience xamoon nañ ni question de manipulation la. tu vois mais tey jii ba ñu ko bëggee reprendre ci Ousmane Tounkara lan moo tax Amérique bàyyiwu ko mu ñëw bu fekkoon ni loolu la rek kon xam nga état bi passé jéemoon na ko jéemoon na ko ci Tounkara mhm. lan moo tax réussir réussir ci te Mamour ibrakan Kane bu waxee loolu euh, mais tegu ko ci yoon quoi mhm. tegu ko ci yoon parce que Mamour Ibra Kane en tant que journaliste professionnel mhm. moom li mu waroon wax mooy que ni nañu nañu nañu nañu réglementariser audiovisuel bi nañu réglementariser ñi nga xam dañoo yor mhm. di wax ñëpp di leen déglu. Mhm. pour lan ñu sanifier sax au moins milieu presse bi ak milieu de télécommunication bi quoi rafet moom loolu la war a wax quoi mais warul wax ni bu fekkoo